sur le principe CREI yi boo ko fa bàyyi woon tey yaa ngi waaj dem dans sept mois le président Macky Sall mais ça va concerner ñi fi nekkoon. mbokk kii yëpp ay nitam son ñëpp donc boo ko dindee tu tu tu tu de faire échapper quelques personnes yoo xam ni ils se sont enrichis de façon éhontée pendant cette période parce que bëri na fi ñoo xam ni en 2012 ne woon rien tey. ñu ngi amee ay biens yoo xam ne mun nañu expliquer fan la ñu ko jëlee et avec ils ont géré l'argent public il nu Karim Wade euh, daanoo noonu la aussi gars yi war mais boo booy waaj dem nga effacer tout aussi bien en sub en euh, nu mu encore euh, faisant disparaître la CREI mais aussi beneen affaire bi mooy en permettant à tes amis d'être amnistiés même su fekkee ni ça ils ont reculé par la suite. parce que amnistie bu amoon mooy on va amnistie dañ ciy dugal ay faits parce que l'amnistie c'est pour des faits di naan fee tel tel tel ci yenn yoo xam ni ça les ange boo ñëwee bëgg a poursuivre la personne ñu la non ces faits sont amnistie mooy pendant douze ans on a fait des certains et à l'arrivée on ne peut pas en donc yooyu baaxul ci réew et puis CREI yi comme ni ma ko waxee léegi at bu nekk ñu jox leen budget liggéey CREI bi day fonctionné de. fonctionné wul dossier. non maanaam ñu ngi jot seen budget. donc ñu chaque année ci budget là c' des actes de malgouvernance ça il faut le dire euh, clairement moi je trouve également que l'histoire de la CREI remplacée par un parquet financier parquet financier c' est quoi parquet d' abord ce ne sont pas des magistrats indépendants autonomes comme les magistrats du siège nga xam ne ils sont inamovibles mooy kenn mënu leen déplacer promouvoir boo ko bëggoon jël benn nit nga bëgg ko jël mu nekkoon TGI nga bëgg ko yóbbu cour d'appel wala cour su ko neexul su ne bëgguma mënoo ko mënoo ko yóbbu